gaay ziar ziarata mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo eh, di leen wax ne tey si dañ déplacé wa ah, ñëw ba fii ci Sam Sam Tali Karo seen émission victoire après combat sama gars yi kan moo jóge ci victoire ñu ne calki calki bu Serigne Sidi Alquran calki bu jàmm gën calki bu Sam Sam moo jóge ci victoire une victoire claire et nette mais combat bu métti la bëri waaw waaw combat mettez, mettez mettez mettez mettez mon mom à l'arène nationale jour combat euh, boulal boulal, pokola boulal pokola ci nga bëree daan jël bu rëy ah, jël bu leer na jël bu amul ben wéranté mo waral tay ñu déplacer wu fas petit ak waxtaan waxtaan ak ci carrière am fi mu jógee fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm sama gaay yi kan moy calki kan moy calki bàyyi leen xel ci barre, yu baax baax parce que mi ngi nii ah, la bandi la gën le boppam mën def mi ngi ci yoonam joggé ci souf di jëm nous allons leen koy émission victoire après combat fii ci Sam Sam Tali tel qui moi sama invité. rapidement lay ziar. yow sa gars lu ñuy lu ñuy tàccu nii mel ñu nekk meeting yow sa supporter lu ñuy tàccu nii mel ni ñu yàkkamti mel ni ñu yàkkamti dem dem supporter ay boo boo ñool ñool ñool jël leen ah. moot ku leen de gars mel ni ñu nekk meeting quoi waay ah li ma wax moo am quoi man damay kii nii rek damay ndelu nii rek na eh, booy bi dafa garaaw xaw ma ci dara de ñu dàq ndelu nag hmm. ñu dañuy ndelu ba ndel suñu waaw waaw waaw waaw ndànk rek waaw ndànk waaw coow donc rek la ñuy topp ñun nee na man damay xaar oh, yaa ngi dégg oh, oh, mais avant tout rak ji lan ngay nuyu avant tout ñi lay seetaan waaw di sant yàlla ji seen bi sant sama ngal si ma alxuraan sant samsam ñu ma dëkk indi baat bi ca kaw baat bi ca kaw sant samsam ñu ma dëkk indi waaw waaw jibu taari waaw ma yaa jël sa ruubu ndaw ma fi am mawti ma fi am mawti moo fi am njogi taari ak teg rek jeexal ak teg rek jeexal waaw ma combat yooyu ñoo fi nekk ndeysaan ñoo ngi koy nuyu instant bi waaw Aliou Fatfat loolu moom mën ma teg rek jeexal mën na ko teg jeexal woo ndax boo fa tegee jeexal dañ lay addu ko bul de ko tiim teg rek jeexal wóorul. waaw nag boo tegee jeexal dañ lay àdd ko bulde ko tiiroo. àdd bulde booy yaa ngi wax lu garaaw yaa ngi wax lu yàgg booy. booy yow ni ku yàgg nga booy. àdd bulde. àdd bulde ko tiiroo waaw mais mi ngi wax lu yàgg àdd bulde lu man loolu xaw ma kañ laa ko gëj a dégg. fii digg ñànga tàng bi la. digg ñànga tàng bi. waaw ok nama taata bi la kuntaa kin teewoon tarama kuntaa. dégguma dégguma ko nama taata taa. seen bu tawoon rek bu wisoon nii rek daal di xaaj noonu la fa demee booy booy booy eh eh eh jógal jógal jógal fil bi jógal ay tëj fil bi jógal moo <laughs> dee fil waaw noonu la fa demee xale yi mooy noonu yëpp xale la ñu def mais a ji avant tout sa histoire la fa la tàmbalee lan lan moo la dugal ci lamb dugal ci lamb waaw bat bi ci kaw bat bi ci kaw nekk xale xam waaw waaw fekk suñu mag yi di bëri waaw waaw fekk jamono yi xam nga mhm. jamono yi débuté si xam nga mhm. waaw jamono yi Balla Gaye Modou Lo yëpp xam nga fi amoon ay mag Boy Naar mhm. Boy Naar Boy Fall. Fall waaw waaw sax yaa debo ay Bolo. ndeysaan xam nga Bolo Lamine Bolo. waaw. maa ngi ay mbéy ngay si ñor waaw ngay si ñor waaw Alaaji Lawbe. voilà uh-huh. tigre ak yooyu noonu. ndeysaan petit tigre. côté waaw noonu la fa demee. waaw loolu la demee nga nekk xale bu ndaw. waaw nekk xale bu ndaw saa yu yëgee. ñoom ñoom Ousou Bane Ousou Bane mi ngi woon tuuti. waaw jamono fekkee moo ko nag. Hmm, fekkee waaw saa ma yëgoon traite bi dem ay mbapat dañu naan xale bu dem. ndeysaan Jos Cité. waaw nga dugg ci bëri. te fooyee bëri. ay xale ndaw la. Hmm. ñu rek soo génn. Mbadou. ñu euh, mbapat nga. mbapat nañ mais xam nga fii moom sam la. Hmm. mbapat bu yàgg du fi am. bariwul de. bariwul de bariwul de tëngéej laa mujjee bëri tëngéej. tëngéej nga mujjee bëri mbapat. doomu jokkul. doomu jokkul doomu jokkul man mel na. doomu jokkul ñetti jëlee si benn taaku saan daaw. luy loolu. mu ko palaake sënu bi simee ko da ngay sóob rek. loolu gaa yow nag mooy mooy sunu jàmm booy mun a man yow da ngaa mën a jóge fii dem fekk doomu jokkul biir biir jokkul biir. boobu ñu ñëwuñ de. waay waay da la àndoon na fi forage boobu ñu ñëwuñ ñi bu ñu ñëwoon rek laa am di yegg ay quatre heures du matin ak la drapeau mi fi kii boo ko damm ana njool baan nga njool baan drapeau mi fi non dañ ko waaw waaw drapeau mu sama gaal rek nga fekk ko tëngeej tëngeej bëre moom lën bi simeeku gaa yi ne daa daa laal koor bi mu ñëwaat waaye kay kii mu rëpp ma ma leen ko mu rëpp war ko noom arbitre sifflé beneen bi nag mu dóor ma tànk beneen zone bu baax la ma ko nga caxa nga roof fa caxabal ko lamb ji jeex lamb ji jeex gaa yi du ñu te drapeau bi indi nañ ko hmm. kii moo damm demee ah kon loolu ak yow fekkee nga kon fekkee nga ba muy bëreeg eh, mu jokkul hmm. fekkee nga mu dem fekk ko tëngëj bëreeg moom daan ko mais hmm. mës nga jël tournoi tournoi waaw xanaa àll ba nii. àll ba fan yoo paase maa ngi woon waaw. mais déwén moom bëgg naa dugg ci ci njàngatan bi ak yeneen son ndax booy ba nag ay croisades di balbal noonu booy yooyu noonu mooy yoon. te fas yéene dem mbëkkante ñoom. sa première léegi ban ban écurie nga nekk. kon di Bosco Sow ci Pathé fa nga nekk sa premier combat dans l'arène nga bëre kan Reug Reug numéro 2 Reug Reug numéro 2 bu bu ngeen bëri ci bés bu mag à l'arène uh-huh. Bombardier Eumeu Sène Bombardier ci nga bëri sa premier combat dans l'arène yaak euh, Reug Reug numéro bu bu Pikine ni mu demee da fii nga ko teg jas la jëm ko waaw jas ma ko jàpp ne ko attaché vos ceintures nga taru ci sawar yi fekk yëg na bu yàgg. da nga ko ne ki timtee ne ko attaché woo ceinture. Ah. après. Oh, mu yéeg bu yàgg sangor yi. mu yéeg. Hmm. waaw noonu la fa demee. nga jàpp ko daan. deuxième combat ñu jox la kan. bàyyi ko garaawul bàyyi ko. bàyyi ko deuxième combat nga am kan yow Thielki yow lu yar yarul nii booy. yarul lu tax mënoo wax ci kaw booy. Oh, oh, waay booy non waay booy. door kii tapet la de. Eh, eh, eh. waaw mais qu'est-ce que ça veut dire. yow man ma jógee fu du ma rëggee góor yàlla waaw kii di ma ñëw si gi wax. non yow jël barki démb. waaw ma ma jox Aliou Fatfat yow Aliou Fatfat nga xam ne booy fi jëf booy fi gën a dee ñoom la bàq ñoom la ñoom la jàpp rek rek la daan ci mbër. yile baaba yile baaba nu mu demee nu mu demee daa jàpp yile këpp yalwaanam këpp yalwaanu yile bu Siteu bu Siteu le phénomène de Guédiawaye bu Siteu su ma waroon noom nu ma neex laa koy da ngay sóob da ngay sóob da ngeen a baax rek da ngeen a baax rek yéen kii lambam ak bu Siteu bu taxawoon boo leen ñëwee ci kaw ngeen di aju moom bu ci biir géew bu le phénomène de Guédiawaye da ngay sóob da ngay wax la neex rek da ngaa baax rek mafia bi ñoo la wër rek mafia njogi taar yi mafia xaw ma lan ak lan jël ci ruuj je ne sais pas yoonu. ñëppay suuf. ñëppay suuf waaw booy man waxuma la ay yooyu suuf ak ay yooyu man waxuma yooyu xamal laa la. ci biir géew. waaw. ñu gën a garaaw maag Aliou Fat Fat dañu leen jëndee ma ne ko ñaari yoon mais suñ demee woon su ma neexee dama koy mettre en respect. dama koy manqué respect dama koy mettre en respect. non loolu garaaw loolu jaru ko. bu garaaw la manqué respect Aliou Aliou Fat Fat non jël manqué respect waaw mettre ma en respect dama bot majesté maanaam da lay toojal da lay nangul Malika foofu noonu man gisuma ku ma ku Ama Malika keneen i waxal Ama Malika bëri nañ astafurlah waxal boo ko nañ journée waxal yow woo satir Ama Malika nga ci dugal boo ko nañ journée boobu ma benn mafia jël sa ma toog waaw waaw waaye ay booyam dañoo waaw waaw waxal waaw ama malika léegi xam malika di ah, dugal léegi da ngay jubal xool da ngay jubal ni tout droit même tuuti rek da ngay jubal ni tout droit tout droit mooy saret yi gis nga fi ñuy gaare noonu waaw boo demee nga ne Modou mooy ama malika waaw xam naa loolu Modou Feugeleu ba mu taxawee tey ñëpp ba mu taxawee tey ñëpp kenn mënu koo yëngal cinq combats cinq victoires kan moo këpp yelwaanam kan moo jël tànk bi dëj ko eh? kan moo këpp yelwaanam ah, ah, Ama Malika a am doole sama yelwaan xam Malika Ama Malika boo dañuy sàkkatoo xale eh, yow cal ki yow dégguma barki alxuraan boo yooyu ngeen soxla dañuy sàkkatoo xale dañuy gis ko taxaw ak sigim bi fees man xale bu ndaw laa xale bu ndaw laa bàyyi ki la judd la gis nga lii comme taatu liir moomin la moomin la xale bu ndaw daa teel a xale bu ndaw la daa teel a màgg waaw merci merci yéen booy la nen neex ngeen wax instant bi parce que seen élément booy la seen mbër ca Djiboul merci beaucoup merci rakk ji gis nga gis nga ñii nii mafia bi nii buñ la toppee fii di la gonfle nii ba nga dugg ci loo xamul mafia bi ñoo tax may rente man amul policier may jàppale sama baat si kaw amul ma ko bi mafia bi ak moomi nii ñoo tax may rente hmm. sa koñ amul moom amul policier bu may jàppale hmm. ku dul sama turandoo sa turandoo mooy kan monsieur Seydou Diallo borom impôt domaine hmm.

moo la ëpp doole moo la ëpp doole moo la dàq bëre moo la dàq fecc déggoo lan rek la ma ëpp si àdduna lan la ëpp at at maanaam moo la mag xam ne dafa ndékk lu mu ndékk ndékk moo ko merci waaw lu mu ndékk ndékk moo ko merci waaw merci waaw waaw après après léegi lu ma ëpp ah Malika bu si meeku woon si am nga bëre bu daan am ah, Malika. amul bëre bu mu mën a. est ce que yow am eh, léegi nga xam la mooy problème bi. gis nga fii la nekk di ko waxtaanee di ko café comme ça nii jékki-jékki ma jël lii monté ko publier ko benn promoteur seetaan ko rek ne cal ki ama bu Malika combat logique la. combat bi taxaw nga am problème nag doo amati foo jaar nag. ma ne da ngay entraîné. dama ne la li la am yàlla jox la. waaw oh, jox ko amam man la. am yàlla jox la. na këpp yelwaan bi day këpp yelwaan. waaw day këpp yelwaan man maa ko xam man maa xam day këpp yelwaan. na ko jël yéen pare ngeen. ñeme ngeen ñeme ngeen. Ah, waaw man de fecc rek am si lamb fecc. waaw waaw yow da ngaa baax rek yow da ngaa baax rek day fecc day bëre day xeex. baaxuma fecc baaxuma xeex. am na doole. lépp à part fecc. fecc rek la ñu daax. ñoo ko daax a bëre fecc ba arava bi fecc ni dafa tàggatoo maa ko jëkk a fecc. waaw waaw merci. Ah, waaw waaw waaw boy ci kili daw na ma. ci kili man bu Grand Dakar. daw na ma ba soobu. dalaa daw. barki ah. ah, nga dafa daw. ci dafa daw. ci si boppam. boo yëpp dañuy yow ci kili dugg na fi Petit Balla la fi bëral xaw Petit Balla xaw Petit Balla bu jël Ibrahima Thior ci kili mën na mujjee këpp yalwaanam yow nga nar fa dugaat dugg na mais du génnaat de ah du génnaat bu dugaatee sam-sam tali karo du génnaat xaysara la jëlaat xaysara bu jël Ibrahima Thior la jëlaat kenn booy na booy yab na leen de bu mu fi dugaat bëgg leen dooraat 2-0. rek su ma ñëwee ma dégagé ko naan seetaan. nga égalisé bii yàlla. sa combat dans l'arène nga ne nga bëreel. deuxième combat moom mooy Texaco la. Texaco ngeen bëree à l'arène nationale. jour combat bu laal face à Pokola jour journée euh, Fouta production. waaw li nga wane jour boobu. li ma wane ni ma la yàlla la ak liggéey. ak gars yi may liggéey de liggéey nga ba dee de ay pauvre la liggéey nga ba dee de liggéey bi ba dee parce que biir làmb ji moom sa combat boobu noonu bu amul woon endurance bu fekkonte ni combat bi entraîné woo dëggantaan doo résister bay daal wax nga naan ma jànq lañ luy loolu yaa mën a sóob bu jànq booy jàmm gën comme ça jàmm naa ma booy nga naan ma yooyu jànq booy xam alburi nii la fi def alburi nii la fi def taxaw naan versi <laughs> versinité moo ko tee ci

dernier geste technique bi ngay effectué mooy nan nga ko daane. waaw ma roof sama xaw. waaw yaakaar na may bitter ma ma mel ni ku nga zongale. nga zongle. mot ko colal ko. nga nga yokkal ko mbootu colal. ba instant boobu noonu xam nga geste technique bi nga ko daanee doole la. bëre la waaye bëre bi dafa ànd ak doole. te foofu li ngeen bëre li ngeen li ngeen fournir ci effort dafa bari. waaw ce qui veut dire que ne boobu dangaa ngaa rey sa bopp. dama soxla mu soxla. ah parce que combat boobu combat jàll la woon quoi. combat de déclenchement la woon. da ngaa ut si mu ut si. signature bi ñoo ñëw coow am. Hmm. ah bëri coow nag yow ku bëri coow. bëri bëri histoire nga booy yow. ay saagante am. non non non dafa wane boppam jour boobu bu ñu waxantee dëgg rek. waaw dañ ko doon ñamal moo tax. xam nga xale bi dafa am jom dafa. da ngeen koo ñamal. waaw boo doon làmb da ñàkk làmb. waaw kii amul lu entraînement amul lu làmb ki làmb rek la xam amul leneen. c'est kii lay topp avenir la xale bu ndaw la mobile la. avenir la. dama xeeboon. parce que Siteu Siteu lu mu la wax keroog. ah Siteu lu mu la wax keroog. non ba ma miraayoo daf ma woo. Ah. mu ne ma instant yii nii parking ndaay xam nga nu mu fa demee ñaari combat ji des fexeel ñu yóbbu ñaari victoire na na defet yi bañ a bëri victoire bañ bañ a ëpp victoire yi. c'est jàpp si làmb ci quoi bañ ne suba la. jëf na da cee jàpp jëf na xaalis jox ma jox ma cinquante ticket. fayal la cinquante ticket. Siteu moo def loolu. te jour boobu sax ni mu fa demee na ndax ay yeneen bëre yëpp si lañ doon mu demee noonu. ah yëkkati ko xaalis teg sa loxo. voilà ba pare tax bi nga bëree daan nga daw jub jublu ci simukaay yu bu laal. waaw nga dem saafonte ak ñoom. amoon na fa laamu doon toll moom laa doon ak adversaire lépp lépp di ko travail lépp ci xel. Hmm. ak yeneen yoo xamante ne mooy loolu moom du waxu xam ne da koy da nga koy garder. mais daal ce qui est clair mooy Thialki. Thialki hmm. am na staff. am na nangu na entraîner. loolu Thialki na bëre. Thialki dof na ci biir géew. boo bëggee ci làmb moom fu ngay nekk da ngay da ngay changé. nekk beneen genre ce qui veut dire que ne da nga a wax ne da nga am cër ci làmb. non man dama am cër ci làmb la bu place nii wala ay ut bës seey yooyu noonu dafa am lu ma gëm si làmb benn objectif ma am fu ma teg sama bët si làmb. dafa am loo visé. si làmb loolu lan la fan nga visé. fu may visé ci kaw laay visé. ci kaw nga visé. foofu nga jëm. lan moo la fa yóbbu. liggéey bu bëree bëri. liggéey bu baree bëri. entraînement bu métti. ak entraînement am encadrement déglu sa waa koñ déglu sa waa koñ am fit. am xale am doole. waaw léegi mafia njogitaar bi ñoom lan lañ lay conseillé. moom njogitaar bi ñoom lépp lu ñuy def. mais est-ce que xam nañ làmb sax njogitaar yi ñoom est-ce que xam nañ làmb sax. vraiment la nga sax na entraîné. xam na entraîné. kii ñeela ko ñaanal gudd fan waaw waaw dañ ko ñaanal gudd fan bu guddee fan rek ah, noonu la fa demee mais benn instant tamit xam tamit nii nii nii

te ñuy wax Modou Lo nag bu gaaw a joxe ruwaatu zarn ba ñu xam fekk foofu di ko jël si moom. couronne bi. waaw yéen kon mission bi loolu la. loolu rek la ñuy toog topp ñu leneen loolu loolu. kon rek la ñuy soxla sax koy jël si far force. la couronne. waaw ah jàmm gën. dañ koy jël far force. d' accord su ma ñëwee fii nii ah nii nii rek nii alignement bii nii. nii alignement bi nii. nii ba ci kaw. bu ma defee nii nii ba ci kaw na le ñàkk jariñu ngay am ci kaw boo wàccee nii tuuti am baaba jaxal Cheikh Mbaari yaa may dégg booy naar xaw ma ba xam mi ngi bëree wala bëreetul boo ñëwee di def calki boo avancé tuuti am Modou Fëgala mbaytin si koñ mbaytin mbaytin mbaytin waalo waalo mbaytin am na combat mooy bëre bolo mooy bëre bolo bu Louga waaw noonu la ko defee moo tax teewul lii moom mbaytin sama boole mbaytin mbaytin ñëw naa fi dafa ko émission kon kon mais booy seet booy seet seen seen seen sage bi nii rek tëli karo du nii lamb dafay yàggam doole membre dafa yàgg am doole parce que man ay ñoom booy naar ba ñuy bëree mbapat laa leen dalee Bolo Lamine Bolo benn defet laam ci làmb benn loobu yof moo ko daan n'est-ce pas non non mais mais maa ngi fii làmb dafa yàgg am doole loolu lan la waaw loolu moom deret bi deret bi deret bi ñun lamb nag ñun dañu ko soxla de couronne bi waaw couronne bi dañ koy jël 2025 su ko mën lay joxe dañ koy fekk gàllam jël si jël ko yóbbu la couronne waaw 2025 hmm. su ko joxewul dañ koy fekk gàllam te dañ koy indi fii couronne ya, bi day dugg jàmm gën si Kambaaw fii lay ñëw day dugg sam sam tali sam 3 fii lay ñëw la la couronne le roi des arènes te kii moo koy indi te te di nga fi ñëwaat fekk mu sol ko te mission bi cal ki moom ngeen yónni la dem jëli couronne bi

哎，哎，不是。 yooyu muy jaay ñun safuñu ñu daw suñu lan lay jaay bandi géew mën a bëre mën a xeex mën a combat bu mujj bi mbër mi da koo dóor yël mu këpp waaw parce que mbër bi da koo ragal dafa def si boppam ñang baaw lay bëre waa léegi ak moom set waa léegi yow yow boo waroon bëre ñang baalu ñang baaw day xaar bu bëggee ku songu day xaar ñang ku songu hmm. ñang bu ñu leen ku songu ku songu sa morom ñu ko songu ki fi nga dugg li naan bu maanaam cin bu cin buy baax la amul. buy baax la amul ruq buy mooy sa adversaire potentiel. foofu lim nga lim nga Aliou Fat Fat. waaw Franc Mbeur. ba dem CNG ñu bi suba si mu ne daa bële sa foofu lan lan. te la ko man boo ma jëlul ren tamit demee li nga bëgg mu jël moo mooy. Franc Mbeur instant bi réparer le croisé. réparer le croisé kon foofu ki daana ki daanu pare nga. ak réparer. daa yàgg si yoon moom day zigzag. day zigzag mu ngi ci route nationale bi di nekk ci ay cambre nag yooyu te ñun Ila Touba lañ. réparé nga wax loolu lañ koy génnee nag. terre bi droit rek. amul jàddu gauche amul jàddu droite lu taxaw sa kanam nga ne ko xajal ma ma jàll ah noonu la fa demee instant bi écurie écurie euh, Bosco Sow fa nga nekk école yi Bosco Sow coach moo la yor nan nga fay dundee waaw ah, ni ñu koy dundee mooy entraînement rek waaw waaw waaw mag lu moom nga jox ko xale lu moom uh-huh. loolu kese. li mag moom nga jox ko. li xale moom nga jox ko. noonu nga koy dundee foofu noonu. mais daal yaa ngi déggal sa coach. respecter say entraînement. sa encadrement euh, euh, sa koñ. aussi lépp naaj. kon ce qui veut dire que lamb ji am na gan calki ñëw na. loolay wax ji. waaw calki is coming. soo ne calki is coming su ma dugg si lamb. waaw amul du ma nangu grand combat bi yowul ma dara ci bépp côté. keroog làmb jooju dafa amoon nu ma ñëwee su ma ñëwoon Pokola woon ma bu si nekk woon ma def ko lu métti. Euh, mobilisation bi lan la. Ah, la lan la fu mu jógee. xanaa booy yi leen di jënd da leen di fay deux mille deux mille leneen da ngay non fay deux mille deux mille leneen ñoo leen supporté ma wala ma ci xam du ma kat damaa xam fu mu jógee foo toj foo toj bay mobiliser lu toll loolu man démb rek. waaw ndox laa reeree. yoruma lu ma fay kenn. waaw mais fay boobu mooy lan. léegi yow foo toj ba booy yooyu yëpp da la ah di la topp. loolu noonu. waaw ful boobu di la topp. loolu noonu yëpp mu gën suñu borom la ak ak maanaam respect bu nga leen di jox. Hmm. waaw bi ngay jox gars yi ñu delloo la ko. moom mooy jox loolu kese la réciproque loolu kese la.

doole te biñ dalee ànd ak yow stade arène ba léegi saa yu yëngalee ci kaw da nga koy matal ci suuf ngeen ñibbi si jubilé te noonu nga ko fas yéene jàppoo ak ñoom ba fan lu leer ba ca kaw ba couronne bi incha allah ba ca couronne ba waaw xam nga dañuy topp jox ma cànk jox ma cànk buñ demee ah niru bandi nag ah niru bandi de. luñ ma tax ah, xool xool dana fet nag neexoo ñeme de. ñun ñun ñu dëgg biir géew da ngay mel ne ku soppali ko booy. mel la ñuy daw que dañoo xam lu ñuy xaar si koñ xaar xam na ko ñun. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. benn mbër wax na ko ma grand nee su ma su may su may bëri su ma duggee esaat. Uh-huh. ba may daan li may xalaat rek mooy li ma bàyyi koñ ba. li ma xam si porte victoire rek. am ndam bégal say soppe. c'est tout ah, ñu sifaay la. sifaay la sifaay ah, taar yow xam naa ne gars dañ lay menacé. si làmb fu mu toll nii. xam naa gars yi dañ lay menacé. làmb sa diggante yàlla gars duñ la menacé mafia bi booy bëre ji duñ la booy boo jaay sunu làmb tey booy boo duggee si koñ bi dina. dañ lay yaakaar xalaat ñaax la yaakaar dañ teg ci moom Ah, ah te ñun bañ ko déwénee bu soo gis couronne fii ci suñu zone bi waaw waaw ko yaakaaree ak ñeneen làmb day tox si yàgg yàgg làmb day tox si secteur bi yàgg non mais nag mais nag am ngeen cër ci làmb de ngeen cër ci làmb xaw ma nag ba xam làmb gën a mais làmb am ngeen kim ñu ci gën a xeeb ñoo gën a yomb maanaam mais xorom si ñun la buñ dugul lépp la la dama gën si Kambaaw. waaw sam sam xorom bi ñun ñun lañ ci gën a xeex. mais ñun dugub ñun ñoo gën a yomb. Ah, affaire am am ngeen làmb de. làmb am na fi de. waaw làmb am na fi de. waaw bu ñu la jàmm gën eh, eh, eh, Karo. làmb am na fi de. bu dul dara rek Baba Jaxal mii rek xale bu ndaw la. waaye gis nga mi ngi koy forcé. làmb mi ngi koy delloo cër bu mu moom. moo du fëgala mi ngi ci yoonam. mbéytin bayra ji demeewul noonu mais preuve yi ngi fi hmm. Ah? Ah? ah boo demee ci mag ñi Siteu Mama Lamine ah. eh, Balla Gaye ñoo taxee yaa may dégg ñu koy imposer Farouz malgré que ne am na tuuti retard mais lim liñ fi def lim fi def bu fi jógee lim fi def kenn mënu ko fee jëlee mm-hmm. ñoo xam ne bañ taxawee kenn mësul a daan Farouz moo leen njëkk daan yaa may dégg kon budul dara jàmm gën mm, am na cër ci làmb deuxièmement mm-hmm. dem feneen ñu ne ma grand bi man su ma sañoon dëkk jàmm gën man leen tax ñu ne ma jàmm gën dañoo mën a supporter trois mais jàngoon ragal du fa dëkk ragal dëkku fi waaw ragal du fi dëkk yaa du fi dëkk du fi fekk du fekk fi la fa lamb ji wërngal ban idol ban mbër sama idol waaw kon si sama idol Siteu Siteu yalmin bi waaw Siteu ñun fegu idol ci lamb moom nga daan gis muy bëre ma ngay nga ma ngay gis ñu doon ak

koo xam ne moom nga moom nga gën a naw bëreem ci làmb ji. koo xam ne moom nga gën a naw bëreem la. Siteu Siteu nga koy jox. làmb ji wërngal këpp Siteu fi dàq bëri. Hmm. may ma tuuti maa ngi ñëw question suivante bi limal ma juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji Siteu ak kan ak kan ak kan juróomi mbër. Siteu Baba Jaxal Baba Jaxal Mbaye Tine Junior. Farouz Mama Lamine Mama Lamine ñu ñoo dàq bëri ci làmb ji. juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji nga jox ma juróomi mbër jàmm gën si Kambaaw pour lan hmm? pour lan bu dee ma ko lamb ji laa wax wërngal këpp nga jox ma juróomi mbër jàmm gën si kàmbaam ah kon ñi daa ko bëri ci lamb ji jàmm gën nañ dëkk Sita Baba Jaxal Mama Lamine eh, kan nga ne mbaytin mbaytin waalo waalo ak kan ñi ñoo dàq bëri ci lamb ji question suivante bi lamb ji wërngal këpp ban mbër moo fi dàq xeex xeex waaw kaw ba suuf mbër bi dàq xeex ci lamb ji kan la non yow bokko yow bokko Sita ma ma koy jox ku gën a niil Mình Yang balo, yang balo waaw jeex na am gën a xam looy hésité rakk ji kon daal dama ne lamb ji wërngal këpp ban mbër gën a ñeme entraînement nga jox ko Siteu lu tax nga ne Siteu gën a ñeme entraînement ci lamb ji da nga koo gis ci entraînement mu ñeme entraînement ba mu wóor la ne kii dafa ñeme entraînement am naa ne Siteu ak Lac de Guiers buñ jàkkaarloo woon hmm. bu Siteu taxawee rek Lac de Guiers amoon fitu hmm. avancé benn parti est-ce que Siteu am na fitu avancé ci kaw Lac de Guiers bu romboon fii mën naa njëkk avancé kawam. Siteu laa wax Siteu laa wax est-ce que am na. fitu dox ci kaw Lac de Guiers de Siteu est-ce que am na fit boobu. yàlla na yàlla may fekkee tal. nañ yàlla may fekk nañ yàlla may fekkee tal. yàggatul ay àllum paayan ak yooyu noonu bés daaw. 2023 23 23 noonu la fa demee coow jibul limal ma juróomi mbër yi gën a ñeme entraînement ci làmb ji Siteu ak kan ak kan ak kan waaye ay yooyu waaye. ñëwal ñëwal non question réponse dañuy passé ci leneen. xam nga maanaam. li ma ma per mas neen jar na wax. waaw ban yan bër nga gën a naw ci ñoom entraînement ci làmb ji Siteu kan ak defal ndànk defal ndànk Maama jëwal Siteu Maama Lamine. Mbaytin Junior Mbaytin Daara Baaba Jaxal Baaba Jaxal question suivante bi ban mbër moo ëpp fit ci làmb ji ban mbër nga gën a naw ci am fitam ci làmb ji. man sam boo ko yow boo ko à ko ma ragal waaw à part ban mbër moo ëpp fit ci làmb ji à part yow question réponse à dañuy passé ci leneen ban mbeur mo fit ci làmb ji Baba Jaxal nga ko jox eh, wëndëng bi coo jibul ba tay ci question réponse ji réponse bi may jox ban fecc waaw kan la kan la lamb ji wërngal kër mbër fi dàq fecc kan la la moo la kan kan fi kan di arène nationale ron bi kan moo fi am cinquante mille supporters cinq mille kan moo fi am cinq mille supporters ñu ko xam ban mbër moo dàq fecc lamb ji kan moo fi fecc ya- min kan fecc lamb ji ah. hmm. ba tey ci question réponse ban mbër nga gën a naw ci am yaram ci làmb ji ban mbër moo gën a yaru ci làmb ji làmb ji kaw ba suuf waaw mbër bi nga xam non non baale mu tontu ah kay ah kay am na yaru gars am na yaru yaru am na am na mbër yu réew mais am na mbër yu yaru question réponse la mi ngi avancé rek waaw ban mbër nga gën a naw ci am yaru a réew waaw kan nga gën a naw ci am yaram ci am yaram ma sam boobu laa naw yow da ngaa yor yow man yow da ngaa yor jërëjëf jërëjëf. fekk da ngaa hmm. ban mbër moo fi gën a réew kon. ban mbër bi gën a réew. Hmm. bu ko jox sa adversaire de bu ko adversaire. kan la gën a réew ci lamb ji kan la jox ma kenn. jox ma kenn rek ñu avancé. waaw kenn rek kenn rek. Hmm? kenn rek. bàyyil tooñ. kan la. alliance Balde yi rek. alliance Balde nga koy jox. alliance Balde moom nga ciblé nga ne moo gën a ci lamb ji coow jibul rek ji. wala albarka rek. albarka Kayre yaa ngi ciblé say adversaire di leen clash coow jibul mbër mën a bëri am fit ñeme entraînement am gàllaaj ban moo ci ëpp solo ci làmb bëre fit entraînement gàllaaj ban moo ci ëpp solo ban moo ci ëpp solo ban moo ci ëpp solo mën a bëre am fit ñeme entraînement am gàllaaj ban moo ci ëpp solo ëpp solo question réponse la oh, bëre deret la. non question réponse la tontul question réponse la tontul ban moo ci solo bëre mën a bëre mooy pay bëre fit entraînement gàllaaj bëre mooy pay kon yow boo boo gisee mbër bu mën a bëre da nga koy naw. man hmm. non gisuma mbër buy bëre lu ma bëre. d' accord eh, Thielky Thielky nga war a bëri ji ah nga war a bëri ji sa jour combat ah sa nga war a bëri ji ñu woo la téléphone ne dafa am règlement bu wàcc ñu ne la yow sa bëri sa fit sa entraînement sa gàllaaj ñeent yi ñu ne la ñett yi nga yóbbu làmb ja benn bi da nga ko fii bàyyi ban ngay bàyyi gàllaaj ngay bàyyi nga yóbbu bëri bi fit bi entraînement bi nga bàyyi gàllaaj mhm. lu tax mënoo bàyyi bëri bi mënu maa bàyyi bëri bi. lu tax bi si deret la ne su ma maanaam daa fekk ma dee deret nekkatul si man. lu tax mënoo bàyyi entraînement bi. entraînement bi hmm. si man la ne lu tax mënoo bàyyi fit bi fit bi hmm. ci man la ne fit kenn du ko tere sa répétition ba tax na gàllaaj ngay jëlee matériel dañ koy jëlee ba tax bàyyi sur boobu bi rek laa koy bàyyi hmm. ba tey ci question réponse ban combat moo la gën a marqué ci làmb bi nga dalee seetaan làmb ba tey ban combat nga dem stade ko eh, stade seetaan ko wala nga toog jàkkaarloo télé bi seetaan ko mu marqué la ba mënoo ko fàtte combat bi la gën a marqué ci làmb ban combat la gën a marqué a seetaan waaw stade wala wala. Papa moo la gën a marqué ci làmb. combat bi taxaw ñëpp ne Papa mooy favori. Siteu entraîné daan ko jël bu rëy. waaw mun amul bëre bu daan Papa nga ne jeex na yàq daan ko boobu la gën a marqué ci làmb. ban victoire moo la gën a neex sa carrière. bi nga dalee bëre mbapat ba arène victoire bi la gën a neex. ban moo la gën a neex. bi nga dalee bëre tànk daanuma ay Balla Gaye du ma ban défaite moo la gën a euh, métti sa carrière bi nga dalee bëri Mbapat Ba Arène. xanaa <laughs> jubul ba tey ci question réponse rakk ji fan moo la gën a neex ci Sénégal ban koñ ban quartier ban bërëb fan moo la gën a neex Sénégal waaw sa koñ bu dul fii moom waaw dara neex ma New York ma neex ay London foo am ci Sénégal ci sa koñ moo la gën a neex sam sam tali karo foo am ci Sénégal sa koñ sa koñ moo la ko dàqal boo doon bu boo doon tukki ban réew ngay dem ban réew moo la gën a neex États-Unis ci kaana yi I do to going to li eh, ci ay conseil ay waa ay keebaax yi daw ci yaram ay ci seen di di def di battre dugg États-Unis da nga koy rêvé Sénégal fii kan kan mooy sa waykat kuy way nga kontaan man Ouzin Keita Ouzin Keita Ouzin Keita mooy sa waykat comédien sénégalais yi kan mooy sa comédien préféré waaw ko xam ne moom ngay seetaan di reetaan ba fàtte sa journée kuy wàccee sa stress séné euh, comédien sénégalais hmm. comédien yi amoo ci comédien hmm. waaw. comédien comédien yi koo xam ne moom ngay seetaan di reetaan ba fàtte sa journée. waaw. comédien é sénégalais comédien é? waaw. préfet Dakar bi préfet bi. préfet Dakar. waaw moom it tëj Iba Mar jël arrêt national yóbbu fa gars préfet Dakar mooy sa comédien préféré. préfet bi. moom nga jàppee comédien préféré. waaw waaw mais pour man damay poser samay question rek yaay tontu. question suivante bi question de Thiop lan mooy sa plat préféré Thiop. plat préféré waaw. béy bu ñu dugal ci four déggu ma. ñu dugal ci four. béy bu ñu ci four. mooy sa Thiop préféré. waaw saabu ak sombu ginaar. loo am maa fi keccax. maa fi keccax. waaw subu kaane bu amul kanja. Hmm. loolu mooy subu kaane bu amul kanja. loolu mooy sa plat préféré. d' accord Thielki instant bii ni may wax ak yow ah. nga liggéey tekki dal ci alal ju bari nii ni may wax ak yow. nga liggéey tekki am alal ju bari lan nga ciy njëkk a def. booy booy booy yëpp a yor dina booy yëpp a yor. a nii nii boo liggéeyoon am alal ju bari nga ne lan nga ciy njëkk a def. fii day mel ni Paris. sa koñ ngay jël dafa ko ba mu mel ni Paris loolu ngay njëkk def question suivante bi comme ni may wax ak nga xey 1 jour ñu ne la am nga ben ben oh comme ni may wax ak yow nga xëy un jour ñu ne la am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jëlee ko fi lan nga fi jëlee benn baat boo ne lii jëlee leen ko fi ñu jëlee ko fi benn baat loo fi jëlee. waaw li bi lañ fiy jëlee. préfet bi nga fiy jëlee préfet de Dakar moom nga fiy jëlee benn baat da naan jële leen fi préfet bi question suivante bi bi nga juddoo bi nga juddoo ba tey ji may wax ak yow ban jour moo la gën a neex ci àdduna ak ci boobu la nga dund jour boo xam ne da kontaan xool sedd ba nga yëg ko ban jour la. kon daal xool sedd bu ma yëg. waaw amagul quoi nag. mosoo dund ci àdduna loo xam ne sedd